amis chers internautes bonjour ou bonsoir sans départ ci ni faire leen di bàyyi xel émission bii nga xamante day daw ci biir TV ngeen am tey seen premier numéro muy man ak mom, man ak mom, tey ki ma dalal kan la Baye Mor Mbaye Goli Goli Mbaye Moussa Diama Koumba Sène Mbaye Goli Fatim borom gaay ma jàkkaarloog mom, da ngeen ma daan dégg tey di gis di donc qui ma dalal Baye Mor Mbaye la fii ci TV la meilleure chaîne du net comme na ma ko daan waxee ci émission man ak Mom. dama koy bàyyi mu daal di nuyu ak waa Saint-Louis Sénégal nuyu ak fansi nuyu waa Sénégal salaamaaleykum Baye Mor. salaamaaleykum Cheikh maa ngi lay siyaare di la jox sa wàccuwaay di leen nuyu ngeen waa équipe bu Saint-Louis TV euh, di nuyu képp kuy bëgge Baye ak képp ki nga xam ni tey jii nii yaa ngi toog di seetaan émission bi maa ngi lay fekk ba sa biir kër jox la loxo di naan la asalaamaaleykum. di leen euh, siyaare te di leen bëggee daal bu baax di wax ni namoon naa la namoon naa yow aussi. man maa la raw. sama waay la su may jàkkaarloog moom dafa may neex. ba may def sama ndorteel moom laa njëkk dalal tey ma ñëwaat fii mm. njëkk koo dalal. mbég laa ci am ak contentement. waa mais xam nga li naan lu dul dëgg du yàgg man mën naa ni sama diggante ak yow dëgg la parce que ba dara dul dara dara doonagul dara sax. Mm. mais ba dara dul dara la woon sama diggante ak yow. Mm-hmm. ma gis bët bi may xoolee muy bëtu mbëggeel bëtu cofeel bëtu ku yéene nit moom nga may xoolee mhm. man tamit ma delloo loolu noonu yëpp nga doon sama frère ñu bokk presque ndey ak baay mhm. bokk lépp di duggandoo ci lépp di génnandoo ci lépp donc tey jii nii boo ma invité dama am cawarte pour ñëw toog ak yow weccoog yow xalaat daal sama waay la mais comme que man ak moom la damay mm-hmm. taxaw ci palaasu internet yi mm-hmm. donc Baye Mor Mbaye euh, pour ñu commencer bañ a euh, nekk ci leneen xam naa ni mën nañu sànnante xeer fii ak ci kanam Baye Mor dama bëgg nga ñëwalaat nu tuuti rek ci euh, presque dix ans mm-hmm. ba nga dooree ba léegi ndorteel gi nga ñëwaatul nu tuuti rek ci sa parcours nga retracel ko internet yi wa Baye de benn jeune la bu dëkk Saint-Louis Eh, yàlla dogal nag eh, émission seen petit galle am eh, jeunesse bi di si dem à chaque année ñuy jël benn nit muy représenté région bu nekk ci loolu nag ma yàgg doon wayantu sama kër suñu waa kër naan ñu seen petit galle lan lay yóbbu man je crois pas sax à ça parce que def ma woon musique sama sama sama sama sama yoon élève laa woon di jàng concentré wu ci jàng bi mais ci loolu li naan Euh, nit ku nekk ak sunu borom bi muy bind sa jóge par force da nga siy jaar mhm. sama yaay bi muy jóg di ma yóbbu fréquence teranga di ma mhm. inscrire mhm. elle était trop souffrante mais teewul mu gis publicité bi rek ñu ma ah comme que instant bii nii kat demee na ni te ñoo dem rek ma inscrire la ñu dem ñu inscrir ñu jox ñu date bi ñu dem def présélection yàlla def ñu sélection ñu war ñu représenté euh, Saint-Louis bi ñu demee nag euh, représenté ko dignement san louis yëpp jàppale ñu àdduna bi yëpp di ñu bégee yàlla suñu borom dogal ñu éliminé ñu en quart de finale mhm. ñu fier ci loolu nag te xam ni suñu borom moom mooy maye rek mooy xañe bu doon ku ne yaay may sa bopp tey kenn du sa a ëppale sa morom dëgg la donc suñu borom mi nga xam ne mooy maye mu mhm. yamalu ñu quart de ñu def ko as cant mhm. tey teewul ñu ñibbisi taxul ñu bàyyi nekk suñu yoon ba tey jii ñu agsi fii alors loolu sax dama ciy ñëw fii ak ci kanam euh, mu jóge seen Petit seen Petit Galle li nga xamante ni moom moo mais nag Baye am na loo xamante ni mën naa ni bokkoon na ci mais internet yi dañ koo soxla Baye Mor jaaroon seen petit gàlle mhm. lan moo tax Baye Mor euh, bokkul ci All Star yi te ñamu ca bokkaloon ca at woowu ba ñoom ñëpp ñoo ngi ci All Star yi mhm. lan moo waral Baye Mor bokkul ci All Star yi waaw Baye Mor lu tax bokkul ci All Star yi c'est mhm. parce que All Star dafa am benn niveau bu fay bokk euh, niveau demi-finale ak finale yi ñoom ñoo fay bokk. te malheureusement man quart de finale laay am. woon participer ci ci ci ci All Star yi. waaw peut-être ku nekk nag ak wërsëg wërsëg mhm. ak nit ku nekk fu la sunu borom di la mayee nii mu xañ la lale mhm. man xañ na ma ustaari mais teewul maa ngi sama yoon mhm. namu ma dara maa ngi dund sama aar maa ngi nekk sama bop nit ñaa ngi may bëgge maa ngi joué maa ngi def samay soirée maa ngi def samay clip samay single ñu di ko bëggee genre nit ku nekk ak li la sunu borom may quoi ñu koy sante sunu borom bu baax a baax mi ngi noonu li tax bokk ci Star yi looloo ko waral mhm. kon seen petit gala bi benn parenthèse la woon li ci ëpp solo mooy Baye Mor Mbaye Goli Goli Baye Mor depuis sa ndorteel ba léegi ñaata single ñaata clip nga def waaw depuis sama ndorteel ba léegi def naa quatre single euh, def naa trois clip euh, ci samay propre euh, moyen xam nga rek euh, doon ndaw nekk si yoon kenn jàppalewu la dafay metti mhm. moo tax sax peut-être single yi demeewul noonu lu bari wala clip bi demeegul noonu lu bari mhm. mais xëcc bu daggul dikk insha mhm. allahu rabbi on croit à notre donc lu nekk dara jomb ñu daal ci loolu depuis bi ñu jógee seen petit gaale ñi ngi liggéey di dund musique di bind di way di répété xam nga ba def suñu ay yëfu bopp donc tey jii nii euh, loolu fierté la ci man mhm. fierté la ci ñi nga xam ne tey jii nii ñoo teel a gëm Baye Mor ca ba muy door ni ko mhm. mën nga lii mhm. ndax bu desoon ci man kese xam naa du yegg ba ma jógee seen petit gars laay concentré ci leneen nekk si mais yàlla dafa def ni ma fa jógee yàlla boole maak Ousmane Diop mu doon sama grand frère léegi Ousmane Solow Ousmane Solow ma koy nuyu di koy nuyu ah, ak sama ay mel ne Lamine Sané Mbaye Mouridou ak ñoom Galas ah, sama grand yi nga xam ne ku lim juum sama staff bi kenn mënul ñun ñëpp daal. dëgg la genre ñoom ñëpp ñoo jàpp si ku nekk dugal sa loxo wane ma ni ma kat carrément am na lu nekk ci yow exploité loolu. ñoom ñoom ñoo jàpp ci Baye Mor ñoom ñooy dooleel Baye Mor. mais foofu sax après dañ ciy ñëw bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey Baye Mor euh, def single yi nga xamante ni mën na ni ñaar ba ñett. Mm-hmm. mais bi ñu ci ëppal solo tey nit tey la. Ah. léegi balaa ñuy gën a avancé ci nit tey. Ah. lan mooy nit tey nit tey mooy jamono ji léegi euh, genre dañuy dégg télé rek ñu demono mhm. wala di juger nit ki euh, te xamuñu nit ki moom mooy kan moo tax ni ma ko woyee noonu la ko ndaanaan bu mag bi woyee moom tamit tuddee mhm. beneen titre mhm. muy soo ma meree kaay wax moo ko mooy Wally Ballago mooy Wally Ballago si albumam bi moo tax nga war a mën a xam loolu actualité la parce que maa ngi wax ci biir wax way bi soo gisee ci man lu la neexul kaay nga wax ma ko boo déggee ci man lu la leerul kaay nga laaj ma li nu jaaxal ci nit tay bi mooy pourquoi pas nitu tay mais nit tay. nit teey. nit teey. waaw nit teey d'accord nit teey nit dafa war a teey. waaw nit dafa war a ànd ak teey quoi. Mhm, mhm. ndax ndox sax bu gàkkee njëriñ la du bëri. dëgg la da ngay koy teeyal ba mu teey. Mhm. bu ko defee gàkk gàkk bi ci suuf lay dem. dëgg la nga mën a tànk ci kaw. dëgg la mën ko utiliser mu mën la jariñ daal. dëgg la mu doonoon li nga xamante ni man jaaxaloon na ma. mais aussi jaaxaloon na ñu bëri lan mooy nit tey. mais Baye Mor ñu gis nit tey aussi. Euh, mën nañ ni dégg-dégg yi ak ñi nga xamante ni dañuy dégg way dëgg mhm. ñin ko gisee ak ni ñu gisee lu ci mel na ne distance love mhm. gisee ko ak euh, xarit mhm. du benn nga dem seeti ay musiciens yu mag liggéey ci ak moom waaw musique moom voyage la rek rencontre boobu faw nga ñëwal ñu si ñu xam loolu nu mu demee yow yaa leen seeti wala ñoom ñoo jël Baye Mor ngir liggéey ak ñoom d'accord euh, musique moom voyage la rek ak découverte

ñuy waa Faramare Music. Faramare Music. ah yàlla boole maak Mohamed Thiès. Mhm. ah mu boole maak Thierno Gadiaga. Mhm. mooy garde rapproché bu waali bi. Mhm. Thierno Gadiaga jàpp sama loxo yóbbu mooy ba ci Papis Ndiaye. Papis Ndiaye ñi nga xam ne mooy chef d' waali. ñu dem ba Dakar studio Blue. ah ñu def ci liggéey bi mucc ayib ñoom it ñu gisal ma gis ma rek. bëggal ma seen bopp. ni ma carrément. Tivaouane talent te gënoon ci jàpp nga exploiter ko defal ma single bu bu bu mucc ayib. bu muccu ayib waaw single bo xamné tay tey ku déglu dina xamné kat franchement musique bi c'est de la pure musique quoi. Mhm. ci lolu bon man nak ma dem sama propre intérêt quoi. pour dem deug la def ak ñom single bo mais c'est pas parce que ñom ñoo ma woo wala dëgg la suma ma nak ñom ñoom ñoo la woo parce que talent bi machallah mi ngi ci yow. et dañ koy soxlo ñu bëre. Mhm. mo waral loolu mais ñu gis Baye lu mu génne machallah da fay neex. Mhm. gars yi dañ koy bëgg xale yi ci sinap yeeg yooyu yëpp mm. gaa yi dañ koy bëgg maanaam ñun ñi nga xamante ni itam ñoo ngi ci milieu bi mm. dañuy xam ni mbaay moor way na way wu neex dëgg la dëgg mais dégg-dégg bu war bi duñ ko ci am loolu lan moo ko waral mm. communication bu des lan moo ko waral staff bu liggéeyul lan moo waral loolu waaw bon staff bi moom du ma nangu ku leen laal parce que genre ñoom moom li ñu war a def moom franchement moom damay ñëw ci ñoom ñu xam ne tey lu ma neex laay wax ci émission ah. lu ma neex saane dinaa dal ci kawam ah. ñoom ñëpp dinaa dal ci kenn kaw c'est parce que si place yu internet yi laay toog moo tax ayca mhm. moom moom boo ko nangul tey dinaa dal seen kaw ndax man maa ngi ci biir <laughs> ay mais man moom franchement du ma nangu ku leen laal parce que mhm. bu desoon ci man kese demee na mhm. neneen ndax tey jii ni bu dul woon ñoom tey jii nii single yooyu ngay dégg sax ba benn nit di ko dégg ak ñaar ba ngay naan lu tax ñetti nit dégguñu ko genre bu dul woon ñoom lool noonu du am. dëgg la ñoom ñoo ma structuré. Mhm. ñoom ñoom ci boppam ñoo ma taxaw. Mhm. ñoom ñoo gérer sama économie ñoom ñoo gérer lépp may def woon ñoom lool du am. Mhm. ci loolu nag peut nag nit ku nekk ak euh, yoonam rek. dëgg la yoon moom balaa muy neex day metti. waaw parce que lu jóg rek yomb rek tiit war na ca quoi. am na ñaanu waajur. suñu suñuy waajur am na ñoom ñun ci lu ñuy def. nit ku nekk nag jàmm bi nag day sabablu rek. man maa ngi def li ma war. créer sama ay mhm. propre moyen def samay single mhm. jox waa Ndar mhm. jox waa Sénégal di Ndar kese laa may soppee fu nekk maa ngi fay am ñu may bëgg yow xam nga si dara fu ne dem nañ fo quoi dëgg la ànd nañu fu ne ci loolu genre peut-être ni comme ni ni ngi niy déggee gars yi peut-être déggeewuñu ma ko bu baax mais liggéey la rek boo xam ne peut-être tamit maa ngi ci di liggéey quoi incha allahu rabbi te incha allah bu jotee ban comme alors comme ni nga ko waxee eh, single bi jox ko mais tamit gis nañu jox ko mais dafa li communication bu des Sénégal des. lu ci mel eh, fa lépp nekk muy Dakar. fa bunt bi mhm. dañuy gis à chaque fois Baymor même bu son bu génnee benn génn lay génn. Mhm. ñu gis ko benn ci télé mhm. après waaw mais xam nga lépp Sénégal moom genre bu fekkoon euh, structure yi ñuy teg ci télé mhm. dafay wuyoo ak ni ñu koy doxalee mhm. tey jii nii keneen ku dul man génn na mhm. parce que tey jii nii ñu am talent ñu ngi ci réew mi mais bu ñu amul bras long wala amuñu koo xam ni mën na leen créer link boo xam ne dina leen mën a yóbbu si télé yi kenn du leen faale dëgg la télé yi boo si dem da ngay xam koo xam ne peut-être moo lay moo lay mën a boolee ki lay mooy lool sinon ñiy def ñuy def émission yi mhm. ñoom c'est pas ñoom duñu mhm. dugg ci ci ci ci réseaux sociaux yi wala di dugg kat ci ci ci ci milieu bi mhm. di chercher nit ñi am talent pour ñu mën leen woowal seen bopp ñoom invité leen parce que c'était ça l'idée quoi idée émission yi ñuy def ci télé yi ba tax ñuy génnee ndaanaan yi mooy dañuy dugg ci dëkk bi dugg ci réew mi dugg ci réseaux sociaux yi seetaan télé yi xool talent yi ñu jël seen ay contact ñu woo leen invité leen jàppale leen ci seen produit yi ñu ñafe jël seen alal def ko ci jël seen doole def ko ci jël seen temps yëpp def ko si alors que après ça n'aboutit à rien quoi donc genre man du sama du sama faute quoi peut-être dama koy ngañ ñi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk kat ci ci ci télé yi wala ñi nga xam ne ñoo nekk peut ci ci ci ci ci ci kaw quoi parce que ñoom ñoo ñu war a tàllal loxo ñun ñu jox leen suñu loxo ñun ñu ñëw quoi comme li ñuy wax ndimbal da cay fekk loxoy borom da cay fekk loxoy borom ñun sunu yoon quoi ñu def li ñu war mhm. mais donc ñoom tamit genre ñoom ñoo ñu war a mën a jege si quoi defaral defaral ñu promotion ba tey di ne après nit ku nekk sa yoon lu sunu borom bind rek après dëgg la comme ni mu ko waxee eh, mi ngi ci roqam di liggéey mhm. eh, ñoo ngi ndar nag mhm. eh, ndar ku nekk génnee na fi ndar ci côté bu nekk maam Golbert Diagne ñu koy ñaanal bu baax ndar ab Guité Seck mhm. waaye ndar mbay Ndiaye ci laa lala mhm. ndar ñëpp mhm. ñi nga xamante ni fii na nu fekk baax et dañuy gis ni à chaque fois ñoom comprendre nañu que ni bunt bi yëpp dakaar la donc soo suñu xoolee li nga wax yëpp dafa c'est parce que da nga toog ndar Baye Mor Mbaye daa préféré liggéey ndar ba ci kanam ndax pour man amatoo looy prouvé fii lan la Baye Mor di xaar pour génn dakaar wane ji boppam foofu waaw Baye Mor euh, toogul ndar kese quoi parce que peut-être li may gis ndar mu ëpp li may nekk Dakar. Mhm. li may performer ndar moo ëpp li may performer à Dakar. Mhm. bon c'est parce que peut aussi fii mooy sama fii mooy sama base quoi te nit ku nekk sa base tey jii nii moom nga war a mën a doxal ba tey jii nii sa base ñoom ñoo lay yëkkati yóbbu la feneen fudul fudul fudul Dakar mhm, parce que tey jii nii bëgg naa liggéey ndar loo xam ne tey jii nii. bu ma mënti dem feneen fu ma mënti dem it aussi damay représenté Ndar dignement feneen fu ma mënti dem tamit fu ma gis dina ni moo doomu Ndar bàyyi na la Dakar nag du question la da ngay rek dem noonu pour ni carrément li mais c'est dafa war a nekk lu naturel quoi man su may dem Dakar lu naturel moom fa yóbbu lu naturel maanaam mooy genre ma am fa business wala ma am fa lu ma fa war a liggéey jóg dem liggéey ji ko ñëwaat quoi même bu ma nekkee tamit benn Youssou Ndour amin yàlla na ko suñu borom def tamit lu ma fu ma mënti dem tamit su ma sañoon man ndar laay tëdd chaque jour di yeewu mhm. chaque jour ndar quoi mhm. parce que fii laa xam fii laa miin fii laa bëgg quoi mhm. donc fii man mooy sama lépp quoi donc su ma demee Dakar liggéey war na ma fu mën a yóbbu mais tamit comme ni nga ko waxee jot na ñu génn dem au niveau de Dakar dem fi nga xam ni kat peut-être moo ëpp showbiz parce que ndar aussi suñu waxantee dëgg amul showbiz quoi ndar yaatul benn yaatul bi benn milieu la benn endroit la ñu am muy ci ville bi foofu la ga yëpp di daje. Mhm. bon su koo bëgg gis si artistes yi wala koo bëgg seetaan da ngay ñëw ci ville bi wala yeneen yeneen saa yi wala yoon. dëgg la par rapport ak ak Dakar quoi. Mhm. quartier bu nekk peut-être mën na nekk ndar mën na mën na mën nga ko comme tëkkale ak ndar quoi. Mhm. Almadi day noos ah, maris fu nekk da ngay dugg dangay ngay nekk sa bopp quoi. donc genre. showbiz bi fi war a am mënu fi am quoi. parce que dafa ndaw ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp dañuy dëggalante suñu biir quoi mais Dakar moom wax dëgg yàlla. ça veut dire ça veut dire Baye li mu soxla moom mooy comme tey ñi si kaw. ni ñuy defante seen biir barki Demba Ndiaye gis nañ ci benn cas. Uh-huh. Uh, ñoom ñaar ñu bokk ci benn salle. Uh-huh. donc Baye Mor loolu la bëgg moom te loolu mënu ko am ndar. waaw bon loolu man bëgguma ko parce que jàmm si la ñëpp xaj quoi <laughs> dompat nañ ma ba sonn sax mais. ah kon gars yi ñoo lay cookaas. waaw gars yi dañuy dompat mais tamit dompat yi tamit genre du tee peut tamit nga nekk sa yoon rek parce que tey jii nii bu bu sikkim lakkandoo ku njëkk a yoo. bàyyi foofu faaw ma taxaw ci. Ah. nan la la gars yi di cokkaasee quoi. non mais du question de yoo xam ne. motivation lay cokkaas bi moom xam naa du ñi nga xamante ni ñoo féete kaw peut-être. non ñi ci suuf la. non man fi mu toll nii. oto bi ci kanam dañuy corne. fi mu toll nii. Eh. suñu borom rek moo ma féete kaw. ah non mais dëgg la. mais non mais ah. mais nit ku nekk genre tey jii nii lu suñu borom def ci yow wuute na ak li mu def ci keneen. dëgg la man suñu borom laa jël teg sama kaw. dëgg la ak sama waajur. Mhm. ak peut-être. non mais ci aar bi mais ci aar bi. ci aar bi man mën naa ne tey jii nii li may doxalee mooy rakk topp mag. waaw doom respecté baax. kon yow sa rakk ni nga war a respecté mais c'est pas parce que ñoom ñoo la féete kaw wala dara. sa rakk yi ñoo lay cokkaas. non man waxuma rakk waxuma mag. ah non xam naa ñi muy wax. kii dama bëgg dugal quoi. ndar ndari itam xam na ni ñi muy wax que ni ñoo koy cokkaas. non non kenn cokkaasu moom man ñëpp laa seqal jaamu fii ndar. Ah, ba yaa ni gars yi dañ lay bàyyi non non mais ay dompat di sew ay dompat de motivation lay doon d'accord léegi dañuy avance waaw vu baay Baye Mor mi ngi fi ba léegi te demagul jox nañu ñaar ñett mhm. ba ñeenti single mhm. est-ce que mën nañ ko xaar comme que moom nee na demagul ci album bien sûr Baye Mor mi leneen lu ëpp album. Mhm. Baye Mor ni mu liggéey tey jii nii. Mhm. genre euh, mën naa ni na du yàgg ba ma ni peut-être damay toog ci ay. Mhm. ci ci ci télé yi di di di wu wala dara quoi damay sant yàlla quoi. mais ay jeunes lañu ay ndaw lañu. suñu amoon ku ñu jàppale aussi dañuy gën a jël quoi. parce que tey jii li tax peut-être suñu carrière xaw a yéex c'est parce que genre amuñu ku ñu jàppale wala dara moo ñu tax. mais sunu ay propre moyen la ñuy récolter sunu ay fonds ñëw di defar benn benn tekk-tekk nag peut-être moo gën ñu rek yàlla lu neex du doy. et eh, bëggoon nañu gën a continuer ndax question yaa ngi fi et des na. mais comme que temps la. Mm-hmm. fenn rek laa bëgg ñu ñëw fa. Mm-hmm. depuis sa ndorteel ba léegi lan la aar defal baay Mor. waaw depuis sama ndorteel ba léegi aar li ma defal bari na parce que def na ci man nit ku ñu respecté. Mm-hmm. def na ci man nit koo xam ne xale boo xam ne tey jii nii. ñu ngi bokk ay mag xale boo xam ne tey jii nii taxawee na place bu mag mën a lijjanti lu mag mën a lijjanti. Mhm. am cër boo xam ne mag am na ko ci réew. Mhm. donc aar defal na ma loo xam ne tey jii nii mën naa ni budul woon aar ba ci kanam ngeen di mën a xam Baye Mor. Mhm. mais aar tax na tey de nii demaguma. Baye Mor a ngi sant ci aar ngi sant ci aar. d'accord maa ngi teral samay waajur. d'accord ñu ngi may ñaanal.

li ma ci dund bari na mais man bànneex laa ko def parce que loolu moom moo may xippil samay bët loolu moo may gën a motiver aaka ma gën a gëm sama bopp ma gën a liggéey ba tey jii nii loolu noonu ma dund li koy faj mooy tey jii nii loolu terew ma àgg fi ma jëm loolu moo ma gën a tax man may persévérer bon bari na moo tax mënu ma ci lim quoi d'accord ñoo ngi ci man ak moom mais mënuñu génn ak vu que réew mi fu mu toll mhm. eh, Baye Mor ban message le manager les jàllale ci jeunesse bi rawatina réew mi fu mu toll ci côté bu nekk rawatina politique ak est yëpp. wa man moom message bi may lancer jeunesse bi mooy ak képp kuy nit sax ku nekk ci réew mi ak fimu tollu ni nii. Mhm. ñu conscient ci suñu bop quoi. jiital suñu bop d'abord parce que sama bop moo ma la gënal du bañ ñaar mhm. euh, politique bi ñu nekk di ci daw. Ah, ak euh, rayante bi ñu nekk mhm. ak xeex bi ñu nekk xuloo bi ñu nekk mhm. jàmm moo ëpp lépp loo gis mhm. tey jii nii si jàmm nga mën a waxtaanee ak nit ba convaincre que ci li nga bëgg ci jàmm nga mën a nekkee ak nit ci jàmm te tëdd sa xel dal te dara du la déranger su ma sañoon ñun ñëpp ñu jiital suñu bopp ñun parce que bu ñu jiitalee suñu bopp rek dara duñu fëkk suñu bët quoi tey jii nii li ñuy am ñun di ñuy ñuy politique ñoo ñu koy jox ñun ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp donc ñun li ñu war mooy am sunu sunu choix bu bu heure vote jotee ñu voté ki nga xam ne kat moom moo ñu doy jarul xeex jarul xuloo jarul marche jarul grève jarul dara. d'accord a xool ku ñuy teg sunu réew moo xam ne moo ñu arrangé ñun ñëpp. ñu jël ko nekk si jàmm quoi. <laughs> d'accord mooy loolu nekk si jàmm nit ku nekk nekk si jàmm moo gën quoi jiital sa bopp daal sama bopp moo mën a gënal di bañ a man ne bàyyi moo du ma xeex ngir nit. Mhm. du ma xuloo ngir nit. Mhm. du ma def dara ngir nit ndax sama bopp man laa tal quoi. d' accord fii nañ koy ndar képpee mais avant may toog ak yow. Ah. dama am question ci say fans. Mhm. mais yooyu xam naa bu ñu toogaatee laa koy posé benn laa ci laal. waaw ah. Baye Mor ak Joli Ba. Ah. waaw sama nit la sama xarit la sama mag la boo xam ne maa ngi mën a bokk ndey ak baay koo xam ne tey jii nii mën naa ne bi mu demee ba léegi. yu bari loo xam ne tey jii nii nit moom mi moom fa doon taxaw tey wet naa ci côté boobu mhm. joli yàlla sunu boroom daf ñu boole mhm. dëgg la yàggul sax benn laps time la nii rek mhm. mais mu doon koo xam ne daf ma bëggal boppam koo xam ne tey jii nii fi ma tegoon tey jii nii bi ma bi ma dee xam nit ba léegi mën naa ni teguma fu toll noonu quoi très sincèrement dëgg la yaayam ànd si papaam bëgg ma ay frèram bëgg ma seen kër bëgg ma ay famille bëgg ma dëgg la mu ni ma kat bàyyi ma wax ma diggéen yow mooy faw fi ñuy dégg ñu mag ñi ñu la fay dégg te ndegam mën naa ko dinaa lay jàppale mhm. donc kooku noonu tey jii bu ñu wanee ginnaaw dañ koy ñaanal mhm. sunu borom xaare ko àjjana mhm. fi mu jëm gënal ko fi mu jógee te sunu borom ah, may ñu gudd fan ñun ñu yàgg di koy ñaanal ndaxte wax dëgg yàlla bu ko yàlla fayee xolam du gis dara lu muy ragal fa mu jom daal. ayca ah, dama sant la franchement dama lay bàyyi nga tàggu mm-hmm. euh, internet yi. Mm-hmm. tamit nga tàggu say fans jox leen rendez-vous ak projet yeeg yooyu yëpp rek ñu tëjee foofu. waa internet yi maa ngi leen di bëggee di leen remercier aussi ci euh, toog bi ngeen toog di seetaan émission bi di remercier aussi yow sama frère li nga xam ne tey jii nii bu doon ay projet yu indi. leneen la tamit mhm. xam naa ni mën ngay njëkk xalaat ndax lépp loo amit bàyyi moon nga ciy njëkk xalaat donc yàlla na sunu borom mootali may la nga yeggale sa yoon defal la jàmm sunu borom sàmm ñun ñëpp defal ñu jàmm boo xam ne tey jii nii waaw lu nu bëgg rek dañ ciy dem mhm. aar ñu ndaxte ay ndaw lan defaguñ dara ndaxte dëgg la ndaw moom mooy nekk lu nekk mhm. aussi donc nañ ñu defal jàmm mhm. aar ñu sàmm ñu mhm. bañ ñu indil fitna parce que ndaw moom ku koy indil fitna rek wala di ko déposer à des dangers tey jii nii kooku bëggulu ko jàmm quoi bëggulu mhm. ko réussite te su ma sañoon ñun ñëpp ñu doon benn nekk si jàmm di yéenante jàmm di def loo xam ne tey jii nii sa morom boo bu ñëwee si moom jàmm lay doon moo gën nga koy dugal ci ay danger yoo xam ne tey jii nii moom du am lu ko couvrir dëgg la te genre du def du yëg du tin nga koy sosal wala nga koy miimal wala nga koy waxal loo xam ne du dëgg mais suñu borom mu ngi fi day àtte te bu soobee yàlla insha allahu rabbi yàlla ñu suñu borom lan ngay xaar loo fans yi waaw fans yi nag maa ngi si projet mhm. ndar insha allahu rabbi dinañu gis beneen facette Baye Mor instant bi sax dama mel na ku def stand baay parce que mhm. niveau bi ma newoon genre dama ko bëgg changer te il me faut beaucoup de travail mhm. ñëw ci beneen facette mhm. ñëw indi beneen Baye Mor boo xam ne Baye Mor unique la mhm. du Baye Mor kenn quoi Baye Mor unique la Baye Mor goli goli bi nga xam ne moo ko moomal ci loolu laa nekk te ci liggéey xaar leen ma ci facette yu yaatu daal ayca mi ngi noonu euh, jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xamante ni yéen doon bàyyi xel mhm. seen émission man ak moom ci biir Saint-Louis TV mhm. ngeen ci àndoon seen doom Cheikh Waly mhm. waaye tamit ma doon feggoog sama waay sama xarit bàyyi Mor Mbaye Goli Goli nee naa ko bu ma koy bàkk dafa may neex rawatina xel day dem ci golden yàlla na yàlla yërëm ko ndax moo ko daan bàkk ci Mbaye Moussa Diamacoumba Sène Mbaye Goli Fatim Maajooje borom ngaay bu nee xooy Mbaye Demba laaj ci Mbaye Demba xel yëpp dem ci moom yàlla na yàlla yërëm ko ayca jërë ngeen jëf man ak moom nag xaar leen te xam ni bépp artiste bi nga xamante ni mi ngi fii ci biir Ndar di wéyal aaram nekk ci carrière am dinaa toog ak moom ñu waxtaan ci carrière am ak lépp mhm. jërë ngeen jëf merci beaucoup ba beneen yoon incha allah jaajëf